bokki yi daleen ak jàmm jamono ji ñu joxe atteb Serigne Khadim Gueye si diwaanu Louga ngir ay donga daara yu ñu jéngoon chambre criminelle bu Ndakaaru moom mu ngi sëggoon si dossier boo xamante ni bii daanaka moo gën a lool si yoo xam ne doon nañ leen fitnaal xëy li nga xam ne moo gonte foofu si tribunal bu Ndakaaru naan li jéye ju yéeme la woon amee woon diwaanu yëmbal atum waaye ni ki démb la chambre criminelle bi del si waat si Seynabou Ndiaye am lu toll si fanweeri at ak juróom benn dafa doon fitnaal bu baax baax ñi nga xam ne ay doomi jiitleem lañ ñaari gone yu jigéen yoo xam ne juróom at ak juróom benn at la ñu ji mu leen doon fitnaal fitnaal yu métti jamono joojee sax ñoom seeni at yegguloon foofu kenn ka juróom benn at rek la amoon keneen ka ñeent Seynabou Ndiaye mii da doon fitnaal bu baax a baax yooyu la doomu jitleem di leen dóor dóor yu métti saa su nekk ba yegg sax jël ab saabu def ko seen i bët ba ñoom ñi seen bët yi mujjee muuru maanaam si gumba la ñu mujjee loolee nag ni ki démb bañ koy àtte foofu sa kanamu tribunal bi la merloo nañu bëri ba daanaka sax boobu lay àtte dañ ko mujj cause ndax xol yi jugoon sa ñi nga xam ne ñoo teewoon wi la mbir ak jëf ju ñaaw ji nga xam ne soxna si def na ko gone yi nga xam ne kenn ka mu nga tudd nogay keneen ka tudd faatu waaye du moom kese sax ndax bàyyi ñi nga xam ne ñoo di gone yu jigéen yooyu moom yoon teg na ko loxo si wàllum complicité ndaxte seen waajuru jigéen moom si boppam moo ne kii taxawu taxawaayu bàyyi ndaxte du teew mukk sa kër ga te dafa sàggan lool te ragal jabar ja waral soxna soosu yoon teg ay daan yu métti si kawam ba mu des sa biir kaso ba kaso kasa fanaan ni ki dem mu may guy may sàññ ak ay naataangoom buñ sukkandikoo si yenekaay bi nga xam ne moo di lance ginnaaw bi nga xam te ni bi doyen des juges duglu na leen moom guy may sàñña ak yeneen juróom-ñett ci ay naataangoom juróom-ñett ci ñoom juróom-ñeent fanaan seen guddu gu njëkk foofu ci kaso bu rëbës ginnaaw bu ñu leen di toppee wàllum rébellion ak bokk ci benn manifestation boo xam ne yoon da koo aaye bokk ci ñoom Malick Diop Biaye moom yéenekaay bi naan dafa xam ni ki démb sa bureau bu doyen des juges ki nga xam ne moo di docteur Malick Diop moom nekk ci ab xiifal boo xam ne bu dakk la Vox Populi naan ñoom courant bi ñu yokk tax ñu doon ñaxtu doyen des juges gën na leen see maanaam dee na mas courant nga sa kaso bu rëbës juróom-ñett ci ñoom juróom maanaam kenn rek la ñu bàyyi si ñoom moo di étudiant bi nga xam ne moo tudd Souleymane Ndim moom amee na liberté provisoire ginnaaw courant bi Sud Quotidien mu ngi ñëw si ndox mi ak grève bi nga xamante ni bi intersyndical bu liggéeykatu SDE ñu ngi koy amal jamono ji merloo bu futt nag ki nga xam ne moo di ministre bi yàlla wàllum ndox mi fii si biir réew mi di Serigne Mbaye Thiam di leen artu te leen xupp bu baax a baax di leen menacé naan li ñuy def sabotage dëgg la te it ñu ngay jël otage ñi nga xam ne ñoo di askan wi si mbir mi nga xam ne moom la ñu nekkee jamono ji Serigne Mbaye Thiam si biir enquête yenn kaay di ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne moom la jàppee otage ñii liggéeykatu SDE yi daal di def si mbirum ndox mi si biir tribune yenn kaay njiitu réew mi président Macky Sall di joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoo di liggéeykatu SDE naan lu jig njàkk ñooy njàkk jamono ji ak fi réew mi toll moom président Macky Sall ak fi réew toll mu ngay daloo ñaareelu avion boo xam ne moom la Sénégal am di beneen avion boo xam ni bi moo 130 néo bu Air Sénégal Le Soleil yéen xëy di ko xam ne naan président Macky Sall kay mu ngay wax naan tànk yi ñuy dox nag moo jëm dëgg si lu ñuy wax émergence maanaam day wane ne ñu ngay def ay jéego source aanaan ginnaaw bi nga xamante ni bi daloon na boobulee avion nag président Macky Sall mu ngi naan ñu ngi xaar yeneen juróom-ñetti Airbus yoo xam ne ay A330 néo la ngir dolli ko ci Air Sénégal ci biir Sud Quotidien président de la République Macky Sall nag di ñaax bu baax a baax liggéeykatu Air Sénégal yi ngir ñu def ay jéego te sàmmanteeg li nga xam ne moo di moomeelu askan wi xool naka la ñuy sàmmee li nga xam ne moo di avion yi waaye tamit di ñaax bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi saa bu ñuy tukki ñu jël yile avion moom président Macky jamono joojee ma ngi nekkoon si kër président Léopold Sédar Senghor ginnaaw génn àdduna ki nga xam ne moo di soxnaam Colette Senghor ñaari wayu làq yooyu nag ki nga xam ne moo di président Abdoulaye Wade dellusiwaat na bu baax a baax digganteem ak ki nga xam ne moo di président Senghor ak jéego yi nga xam ne Colette Senghor doon na ko def seen diggante mu ngay indi ay seede nag si biir les échos si kanamu ki nga xam ne moo di Moustapha Niass naan Colette Senghor nit la koo xamante ni bii ku woyofoon la waaye jege woon lool ki nga xam ne moo di Senghor daanaka sax moo njëkk a nekk ab secrétaire am mu ngay wax jëf yu rafet yoo xam ne Colette Senghor doon na leen koo defal ñoom ñi jamono ji ñu nekk étudiant foofu si diwaanu Paris naan Senghor moom mi proposé woon na ko ngir mu wuutu ko si boppam nguur gi maanaam bëggoon na ko tabb vice président Moustapha Niass rafetlu tànk yi nga xam te bii président Abdoulaye Wade amal na ko naan jëf ji Sénégal yépp ñu koy rafetlu waaye tamit dafay gën a wane dayoo bi nga xam ne réewum Sénégal am na ko dayoo bi Sénégal am si wàllum football mu ngi koy wane saa su nekk moom Sadio Mané si diwaanu Liverpool l'observateur naan tontu du forox maanaam tontu dëgg la amel ñi nga xamante ni bi ñoo ko xañ ni ki bërki démb li ñuy wax ballon d'or moom ni ki démb nag wane na bu baax a baax xar kanam gu gën a yàññi ci wàllum football ginnaaw bi nga xam ne Liverpool doon na ko dajeek équipe bi nga xam ne moo di Everton ñu dóor leen dóor yu métti waaye doomi Sénégal ji ràññeeku ci lool dugal benn bii amal ñaari passe décisive maanaam moo toj match ba dëgg jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah